ak loolu nag ñun ñun ñoo waral sax gën xeex pour lii mu leer pour que lii dootul amati Sénégal. alors ci beneen actualité bi mu di ces élections euh, locales ñu ngi koy gis ne euh, peut-être coalition yi war nañ génne chéquier yi parce que ubbi nañ pour euh, dépôt lii di caution bi on parle également des d'élections libres ak yu transparentes yan analyse peut-être ngay def ci élections locales yi ñu waaw li ma bi gisee woon ci màggal bi wax ko rek mooy élection yi ñu jëm bëgg na si lu leer lu jaar yoon te ku gagné ñu xam ne gagné na ñun coalition bi nga xam ne bokk nañ ko incha allah xam naa cinq pour cent la ñuy la grande coalition la grande coalition bu nga xamante ni moom lañ tudd après tur bi daan ko daan daan ñu ko wax en tout cas pare nañu. pour conquérir bépp maire wala conseil département ci Sénégal pour que ñu mën ko jël ndax jàpp naa. lan moo nar euh, lan la ñu war a xaar ci nga xamante ni tey moom la suñu saalox mooy maire nga xam nee na de mariage ak maire yi nga xam ne dañuy jaay yooyu ñu sensé leen indi yeneen maire yu bees ndax loolu la askan wi soxla loolu mooy li nga loolu mooy li nga xamante ni ñun moom la ñu soxla moo tax que ñun comme ni ñu ko waxee démb suñu réunion mujj bi première mooy dañuy bàyyi baas bi ñu tànn ñi nga xamante ni moom ñooy gën si ñoom parce que tey ñoo gën ñi ci population boobu noonu ndax tey jii dañuy fexe ba li ñu daloon depuis ba fi may wax yow maire yoo xam ne seen mandat jeexe ban amaat ñetti at ba ñeenti at loolu moo war a tey luubu yi nga gis ñu du ko ko wax yi def yëpp wala ñu di ko wax ci foofu lay jóge su boobaa nag ñun dañu fexe ba encadré li nga xamante ne mooy procédure bi dañu fexe aussi tamit maanaam ba nga xamante ni képp koo xamante ni bëgg nga bokk ci suñu grande coalition boobu ñu yaata la pour nga bañ see bokk ñu jëm si élection yu leer ndax élection yu leerul moom jàmm du fi am parce que ñun li ñu soxla mooy li fi nekk moom na fi jóge foofu la ñuy tàmbalee à deux mille vingt deux janvier deux mille pour jël maximum maire yi war a gagné yëpp ñu gagné ko opposition opposition la mooy moo xam ñi gagné moo xam ñu gagné mais lu ñu siwati mooy ñu ñu gagné mais bu ñu mënee gagné maire yëpp élection deux mille vingt deux muy député yi ak njubla yi nga xam ne gis nañu di ko def ci affaire passe double ak yeneen ak yeneen ñu fexe aussi raxas sensé assemblée nationale bi ban bu ñuy indiwaat yeneen maanaam tànnif ñu bañ a jël tànnif yoo xamante dafay méngoo ak tànnif yi am euh, ci treizième législative yi wala yu ko a bon ndax ji askan wi xam ñooy tànn tamit nañu bàyyi xel ni li nga xam ñoom lañ tànn ci maire yi tey boo tax Sénégal fi mu toll ma toll fa ñoom ñoo tànn tànnoon si député tey kon tànnas gi ñu war tànnas à 2022 maire yi nañu fexe-fexe ba ba ñu juumaat a xool ñi nga xamante ñoo gën si ñoom pas ña fa nekkoon ña fa nekkoon ñëpp moom dañ leen war a sensé ndax maire yi ñu si bari ñi comme ni Sine Sall waxee mooy bu ñu jaayul tamit ay safakat yi maanaam ñu ngi jaay suuf moom loolu moom man suuf si moom xam naa si dara moom hmm. waaw maire yu bari ñu ngi jaay suuf mais mais mais tey jii waaw xam naa si man dara ndax man mi jënd naa si ah waaw maire yu bari ñu jaay suuf man mi maire jaay na ma suuf. en tant que en tan que député. en tant que député waaw damaa jaay ma jënd. waaw léegi est-ce que foofu est mal bi commencé wul. foofu tey jii voilà moo nekk yoon. du mal parce que man dama ñoo ma jaay. mais non mais on va pas de toute façon on va on va même pas revenir sur ça peut-être loolu aveu bi nga mais man je pense quand même que que le mal foofu lay commencer parce que même bu fekkee ñoom domaine ñi ngi jaay suuf si même bu fekkee ñoom fi laa wóoyi dañ ko jaay mais mais honorable ak yeneen ak yeneen li ma wax nii lu wér la te am naa si ay preuve mais honorable ko sëñ Saliou amee am naa ko si te moom xam nga ne man asam sax bu ñu ubbee la 14 la may njëkk wane mooy fukki teer ak ñaar yi nga xam ne domaine jaay na ko muy 120 millions ci benn kilifa dinaa génn kayit yooyu bu ñu ubbee assemblée nationale moo ma ne la est-ce que war nañ yegg foofu waaw est-ce que war nañ yegg tey jii nga xamante ne peut-être que kii euh, euh, mu ngi koy jaay yeeloowul jaay bi nga dem yow en tant que honorable député dem ci jënd maire am na sañ-sañu bu fekkente ne moom li nga xamante ne mooy acte bi jox na ko jox na ko werantewuñu ko mooy am na sañ-sañu citoyen bu bëgg terrain mhm. bu fekkee dañuy jaay nga ñu jënd voilà. mais mais justement dafa am bu muy jaar mais maire bi amul droit. amul amul jaar waaw voilà dafa am circuit bu muy jaay. très bien am yëpp. dañoo tamit maanaam ñu si la ñuy def ay tool def yeneen ak ndax boo ko jëndee maanaam jaar keneen. ñu revenir ci élection yi peut-être sëñ Saliou dañoo wax waxu coalition ñoom ñu ngi waaj a lancer seen grande coalition. waa Gëm sa bopp également grande coalition de l'opposition waa Benno Bokk Yaakaar grande coalition Benno Bokk Yaakaar on a l'impression ah, que euh, peuple bi sax dañuy commencer disperser wu ci ces grandes coalitions euh, ba peut-être xeex opposition war a xeex euh, duñ ko am. waaw ah, nga c'est-à-dire bu ñu laasee ñun suñu grande coalition ñoom daan xam kan moo si grand wala kan moo si petit xam nga am na yoo xamante ni wax la rek. mais képp ku nekk xam nga ku la man aussi. est-ce que du ngeen ubbil boulevard. dañoo bokk yaakaar tax mooy ñun ñun laa wax ñi nga xam dañoo bokk ci opposition bi nga xamante ni tey le président Ablaye Wade moo jiitu ñun suñu coalition. le président Pape Diop Mamadou Diop Decroix. Mm. Euh, Mamadou Lamine Diallo ñoo Abdoul Mbaye CRD ak jot na ñoom ñëpp ak ñi nga xamante ni maanaam ay mouvement lan ak yeneen parti ñooñu moom franchement franchement amuñu poids électoral mooy mooy ñoom bu fekkente ji ñoom ñëpp ñëw nañu pour ànd ak ñun ak yeneen parti yi nga xamante ñoom ñi ngi bari ñu gën a placer pare mënoo xeebal ah, aussi euh, leen xeebal ñoom seen droit électoral dama nak rek man man man je ma kan moo si amul nit non non doucement waaw affaire yi dañ koy analyser ndànk na coalition boobu tey bu ñu nee grande coalition mhm. essentiellement la grandeur de cette coalition repose essentiellement sur le PDS waaw rek lañ mën a ne foofu au moins c'est grand parti parce que bokk gis-gis non mais boo ko gis-gis yéen tam xam nga ne amul point. cinq députés vingt sept vingt neuf maires leen seen bopp de. en tout cas deux mille quatre cent. déedéet suñu bopp. déedéet deux mille quatre cent la ko am. bopp bi ngeen le waaw député. non maire laa dama. 2014 ah, non d' accord mais mais ñoom kese ñoo ak 100 conseillers. waaw municipal ak commune. d' ak ba pare nekk coalition 2017. nekk am na man naa la may loolu mais dama ne. xam nga yow li mu war a yàq parce que da ngay xeebal nit ki li nga xamante ne. waaw honorable rectifié nga ba pare waa déglu ko tamit. da ngay xeebal nit ki li nga xamante ni moom la am. te yow mënoo ko am. déglu ko déglu ko honorable déglu ko. non politicien buy nga nag. ah d'accord man je suis pas un homme politique. waaw waaw waaw sëñ Bara je suis pas un homme politique. mais mais dama wax ne hormis le PDS. je te fais une concession bokk gis-gis. mais lu ko weesu. ndax xam nga ne Mamadou Diop Decroix amul poids politique. Ah non amu ko. incha allah de Decroix bu nu Decroix non dafa ndànk rek xam nga aussi. mbir mi Mamadou amul poids am na maanaam base. yor maanaam expérience man waxuma loolu man xam nga lu ngeen soxla xam nga lu ngeen soxla amul expérience wala amul mais sëñ Saliou sëñ Saliou Mamadou Diop Decroix quand même mënuñu ko xeebal mënuñu ko xeebal taxawaayam ci euh, au sein sur l'échiquier politique ba di ko xeebal poids politique am ne ne ne ne il ne faut pas maanaam kenn mënu ko xeebal honorable honorable nañ ne ne moi pour faire des analyses effectivement xam nga mënu ma toog fii tey bëgg wax ne Mamadou Diop Decroix il a un grand parti te mënuma fonder sumay analyse sur des faits véridiques su ma taxee moo wax ne moo Mamadou Diop Decroix amul poids électoral mm-hmm. c' parce que dama ko gis xam ne depuis lors moom ba léegi partie moom kese moo ci moo ci moo ci fallu te chaque fois il est dans le remorquage dañ ko yóbbaale toujours dans les partis yow xam nga ne nga bokk gis-gis en 2014 damal ngeen seen bopp au moins am ngeen cinq maires. là au moins neuf maires laa d' accord ak cent conseillers au moins loolu mën nañ ci sukkandiku mën nañ ci sukkandiku mais xam nga loolu Modou Diop Decroix defu ko Mamadou Lamine Diallo defu ko waa jot na yi defuñu ko donc ñooñu amuñu tey fenn fu ñu mën a sukkandiku en tout cas amuñu benn baromètre boo xam ne ci lañ mën a sukkandiku pour mën a wax ne ñooñu si son maintenant l'homme politique Modou Diop am na envergure comme ni ko Amath Dansokho nekkee woon Amath Dansokho il avait cette envergure là mais xam nga le PIT n'a jamais été une force électoralement parlant sinon que c'est le charisme de de leaders loolu dafay am ci nit Mamadou wax ne politiquement c'est quelqu'un qui est aguerri Mamadou Lamine Diallo mën naa ne politiquement c'est quelqu'un qui est aguerri Abdou Mbaye moom il n'a pas encore d'expérience politique. maintenant ñi nga xam ne ñoo nekk jot na jot na foofu tey PDS tey su ma taxoon ne PDS c'est un parti parti waxuma dëgg. coalition bi. tu vas tu vas retrouver son coalition moom coalition bu ñu demee élection nga xam ne ñu non grande coalition en tant que telle tant que le PDS y est comme que moom mi ngi si mais nag bu fekkee ne yow honorable da nga bëgg taxaw nga bëgg ci lim ñeneen man la ñooñu moom franchement dañ leen di yóbbaale mais amuñu un poids politique. léegi nag ñoom seen discours politique. Mhm. ça peut un discours boo xam ne ni ki porte. loolu mhm. moom mën naa ko wax. Mhm. mais nag su fekkente ne poids électoral la ñuy wax. en réalité yow xam nga ne ñooñu amuñu poids électoral. d'accord très bien alors euh, ñu ñëw ci euh, Benno Bokk Yaakaar parce que ñu ngi glorifier wu un peu euh, ne c'est une grande coalition boo xamante ne réussir nañ loo xamante ne kenn réussiru ko mooy former bloc boobu boobu ba tey mais tey ñu jëm ci ay élections locale est-ce que yaakaaroo leen ne que implosion dina am au sein même du Benno Bokk Yaakaar parce que localité yu bëri dañoo gis quand même ne que ay xëccoo mu ngi fay am ci ci ci ci seen candidat dolli ci Benno Bokk Yaakaar grande majorité bu buñ ko waxee mooy ñu ci dolleeku ko bennoo bi mhm. ñu ay parti am solo yor ay maire aussi ma rectifier tuuti sëñ bi ci wàllu suuf maire amul droit jaay ko domaine national